همت لكم لنا يا سخاتي شكرا ولكن بلسان تنادراني فكيف تركوها ملت رواسداتي أزمى مساكتي رجل

ñeenteel bi te mujj ci te ñoom lañ waroon a njëkke waaye léeg-léeg dangay seet li ëpp maanaa wala li ëpp daraja nga mujj ko des na ko def itam comme ci li alxuraan wax tanazzalu almalaaikatu war ruuxu ruuxu gi mujje ci biir la bokk waaye da leen ëpp doole xëy kon mooy suñu kii bi waaye waroon nañ a jiital itam ndax maanaam moo yelloo jiitu wala bokk yelloo naa jiitu mooy lislaam nag ci boppam dafa yittewoo lool wàccuwaay wala boo dafa yittewoo yelleef ak àq ndaw ak jigéen jox leen wàccuwaay bu am maanaa boo xam ne waxuma la ca jamono ja lislaam di wàcc waaye soo koy gam-gamle ba ci jamono toll nga lislaam dëgg-dëgg génn ci nag contexte culturel bi wala socio-économique ak civilisation bi mu wàcc waaye njàngale lislaam la wax muy alquran sunna ak dégg na saxaaba yi nga xam ne aadaat cosaan ak yooyu génn na eh, di jàpp ne lislaam joxut gone wala jigéen ak xam ñoom sax dañuy séntu lislaam lañ ko gën a foor waaye day beneen problème gisin ya ak balluwaay ya moo tax maanaam li mu jàpp ne yelleef la góor xale bi daf ko war a am wala ndaw yi su amu ko lislaam daf koo xañ lislaam jàppul loolu yelleef dama jàpp ne loolu yàq lay doon te nit ki su nekkee ne da koo boyal ba mu yàq si ëllëg am nga ci am nga ci part de responsabilité kon tudd naa ñetti tomb wala ñetti mbir yoo xam ne bu ne ci yooyu benn bu ne rek jaral na sax ñu war koo waxtaan beneen bi itam nag su loolu jàllee mooy comme que dañuy waxtaanee lii muy yelleefu jigéen ak ndaw diggante lislaam ak euh, tubaab yi bëgg naa def benn préambule sérieux sax pré li nga waaye daal defaat beneen taw ci la ngir wax ñoom su fekkee ne am na suñu dajee itam am na suñu wuute léegi nag wuute googu lu ko waral léegi ñun bala ñuy def ñu ko jël benn par benn nañ di ko dëddëstal ba am assise bu dëgër maanaam am laykaay bu dëgër ñu xam dëgg-dëgg leen moo ko wuutale ba ma suñu gisee kuy critiqué wala kuy dal ci kaw lislaam ci nangam ñu xam fa mu bokk dañ xam moom fan lay jëlee fan lay rootee fan lay balloo ak lislaam fan lay eh, rootee fan lay balloo kon maanaam dafa am lu wax légitimité légitimité mooy shar'iyya ci arab ah suñ ko defee ci wala seen war a tolloon li shar'iyya waaw ñu ñëwal maanaam lii daal lan moo ko may dara ji yoon ji am ba jàpp ni lii war naa nekk lan mooy lan mooy légitimité yelleef ak ak njëgu ak ci lislaam ak ci ci sunu sunu régime yi nga xam ne moom lañ tubaab yi bëgg a euh, imposé l'islam dafa am lu al xaakimiya kan moo war a àtte kan moo war a àtte su dee ci lislaam nag yellee fi ñu joxe àtte yooyu maanaam yàllaa ko moom yàllaa ko moom yàllaa ko joxe ku nekk yàllaa la ko joxe suñu boroom mi nga xamante ni moom moo bind te wuutale am na ci élèves yoo xam ne daf koo jox ñëpp bokk par exemple suñu duggoon ci euh, droit à la vie droit à la vie maanaam yelleef bi mën a dund kenn ku euh, ko laal du rey du dóor du dagg du nàccal ñu mel loolu yelleef la boo xam ne yàlla moo ko wàccee yàlla bi ñu ko wàccee itam waxul ne kii góor la wala kii jigéen la kii xale la wala ki ndaw la kii gëm na ma wala kii gëm na ma kii nangu na ma wala na ma kii waliyu la ak kii kàccee la ak boobu soo gisee asuli ñoo ni ñu wax ci maqaasid yi moom lañuy wax ne ab darwaat xam xam ñeen def ko sut mooy yi nga xam ne nécessité la maanaam lépp lu sariya législation maanaam yoonal bu yàlla mas a wàcc su ñëwee loolu moom daf koy sàmm waxuma da ciy sàmm yam ci waaye dafay teg ay daan yu métti ci képp koo xamante ne sàmmoontewul ak yooyu loolu moom ñëpp dafay dafay bu lool ci yelleef yi waaye ak yelleef yi lislaam bi indi yëpp noonu la mel yelleef yi lislaam indi noonu la mel ñu gàtt beneen comme yàlla ci war a mën a am am am koom war koo am am àq ci loolu sañ soppaxndiku ci sa alal ba nga xam ne keneen du jël sa alal def ca la ko neex loolu itam àq la yelleef la yàlla ci boppam moo ko moom moo ko may ku nekk maanaam moo ko may jigéen moo ko may ndaw moo ko may góor moo ko may ila xëy na leneen na ci exemple xëy na waxtu dañu ko may ci biir waaye ci miiras góor war naa am nangam jigéen war naa am nangam doom war naa am nangam soxna war naa am nangam borom war naa am nangam baay war naa am nangam ndey war sax ba ko faram fàccee gis nga ko mu dugal wax dañ ko kon yëpp yàlla kon li ma bëgg junj rek mooy yelleef ak àq te moo wax ne alaa yaalamu man xalaq wa huwa latifu alxabir moo ko maye moo ko maye kon jëru téere bu gudd ñun ñi nga xamante ni gëm nañu

xale tam foofee lay balloo maanaam droit ak liberté bu jigéen ak bu bu xale ñu ngi koy jëlee ci ak teg suñu borom bu ñu ko jox nga xam ne kenn mayu ko kenn mayu ko am na tamit ci biir bi yenn détails yu ndaw ndawaan yoo ngir dëgg ngir jamono ngir culture yu bokkul waaye da gis yooyu yëpp itam du wuute ak jubluwaayu jubluwaayu lislaam maanaam yëpp maqaasid asar wala finalité de régulation islamique dañoo wute mën ngaa dem ci ay réunion xaw tuuti ay détails ndaw waaye du wàll dëgg dëgg dëgg kufaan la du fi du féewoo ak mooy yàllaa ko joxe su dee nag ci fii nag ci tubaab yi loolu beneen problème la euh, problématique la sax nag bu ko ngeen doomu aadama suñu borom bind na ko jox ko ci kattan surtout suñu xel loo xamante ni kenn kenn xamul lu toll waaye teewul doomu aadama dafa am limite dafa boobu nag day fesi soo ko doon gam-gamle ak mbiri suñu borom da gis ne lan moo tax nit war a yilif nit tubaab yi bu ñu layal am nañ ci jafe-jafe su doon ci islam day lu simple islam danaan danaan la gëm nga ne maa la bind yàlla nee na gëm nga ne maa la waaw gëm nga kon man rek nga war a maa la digal lii te li nga digal sa njëriñ ji nga def ko aji su dee kii nag bu demee noonu beneen lay doon moo tubaab euh, yi bi mu demee ba li ñu ñoom laaj de bi ñëwee na ñoom comme jigéen ñu ngi commencé ubbi seen i bët di ko gis di commencé yow man noonu ko tuddee daal su ko a firi ci wolof moo tax nit ñi war a yëlif nit ñu commencé mel ñu am rupture wala boog dogoo ak wàllum diine surtout ak euh, communauté théorie yu bëri bëri ci daa jaar dafa am na théocratie théocratie mooy kilifteef eh, boo xam ne ci turu diini lay tege nga ne man diini moo ma fi teg maanaam benn daal diini daal imposé nit ñi te loolu lislaam xamu ko loolu lislaam xamu ko diine instance yi amul kenn kuñ ci imposé wala boobu waruñu ko imposé bokk ci lislaam lañ koy teewul ne da ngeen gis soo dee jàng ci régime politique yi ma sa jaar ci àdduna am na ci góor yoo xam ne maanaam incarnation yàlla la ñu woon maanaam en tout cas noonu lañ leen jàppe daal ñii tuuti ñu ne takk ndeer yàlla la wala représentant la dem di ko ñu ne mooy nammeelu yàlla nga xam ne kenn sañu tekki kon jaar na foofu waaye nag jaar gi ci jaar moom laa leen bëgg wax ne am na ci loo xam ne ay ay processus bu gudd la maanaam jaar-jaar bu gudd la moo indi jafe-jafe bi ak lenn ci nit ñi ñu bëggee gisee yàlla fi bare bari moo ñooñu doon représenté wala boog ñu ne woon ñooy ne bari surtout ci lii mooy diine comme que lii mooy yàlla lii dañuy traité yàlla ñoom ñu ne ko fa nit ku bàyyi nañ àtte suñu bopp bañ bëggee àtte seen bopp nag problème dafa am man sëñ Moustapha sëñ Garas mi sëñ Baye Naar sëñ Fallou Diouf ñun ñëpp yam tax sëñ Moustapha mi war naa jiite na ma jaaral fii ma daal léegi nag ñu ko lijjantee mooy théorie bi ñu wax contrat social te ku demee Jean-Jacques Rousseau ñu ko lool wala Hobbes jëw loog ñu mel noonu siiw nañ ci lu koy tënk mooy dañ naan la doomu aadama yëpp ñoo yem ay yelleef kenn judduwut ñàkk yelleef kenn judduwut am yelleef ci ku ci des comme que ñun ñëpp ñoo yem ngir nga yërit ñu wala nga war ñoo ga sa kàddu ñun ñoo daje mel na dañoo daje daal ne ñun ñii ñun ñoo nangu nga yërit ñu ni ñu nangu nga yërit ñu nag suñu yelleef yooyu li ñu tolloo woon de ku nekk day wàcc ak lépp ci ay yelleefam su ko defee ñu dogale ko nga mën ñoo yëri xam nga ni suñu borom ay toppale dëggantaan fi nga ñi koy sax ñu njëkk def mooy nit ñi kañ lañ ne ndax am na jamono bi doomu aadama bëreegul tasaraa la da nga koy a am doo ci xuróo ak keneen ba demee ba commencé bari soxla yi gën a bari nag dañoo mën a dajee ci jëmm soxla su boobaa nag il faut nag dañuy waxtaan ba ñu mën a may kii fii mu tàmbalee fii yem fii kii tàmbalee fii yem fii en tout cas ci tàmbali contrat social mooy firi lan mooy fan la ñu jëlee suñu yelleef fan la ñu jëlee suñu waar-waar yi tam dañu jàpp ne ak nii lañu war a defale nii ak nii lañu war a tege suñuy suñuy ñu dem te bëgg dëgg woon tax ñuy jóg waaye dama bëgg wax ne rek ñaari système yi muy bu islam bi ak bu occidental bi bokkuñu ay bànguwaay kon mën naa am lu dëppoo waaye même su fekkee nañ ci ima koy defee nii ci illustration bi soo dee gis jubluwaay yi naan naanuwaay yi bokkuñu kon su loolu leeree dañu dañu wax kan mooy jigéen kan mooy ndaw ak nag mooy yellee jigéen al wala femme léeg-léeg am ñaari ñaari définition yu bokkul soo ko dee jël sens large bi maanaam su maanaam yaatu da naan jigéen mu ñu mën a wax wala mooy mooy xaaju góor daal wala mooy seexub góor seex xam ngeen seex mooy seexub góor maanaam doomu adama ñaar la fii soo dee par gendre te du maanaam góor ak jigéen moo fi am amul lu nekk ci diggante bi en yi boobu xam ne moom yàlla rek xam dana ñëw ci maanaam ci maanaa moo xamante ni mu yaatu ne jigéen kurul góor jigéen la moom la ñu at taxrib bu naqi kurul góor jigéen la nga xam ne su boobaa liir bi doog a juddu bi jeeg bi njagamaar bi vraiment gis noonu ba ca màggat mi ñëpp jigéen lañ ci léeg-léeg day sax noonu waaye am na ci beneen jigéen wala femme mooy euh, ci ci majeur ci gàttal ku góor ci majeur nga xam su boobaa maanaam xale bu ndaw bi maanaam liir bi parental bi euh, jànq bi kooku ñoom duñ ko jigéen si kooku duñ jigéen léegi nag foofu ci bopp su dee ci zone de convention ci internationale bi maanaam muy xeeti yoonal yi nga xam ne dañ koy yaqal ci diggante réew yu bari ñu bokk ko te muy wax ci wàllum jigéen ñooñu suñ waxee jigéen maanaam mu njëkk bi lañ si maanaam mu njëkk mooy comme góor rek pour ni léeg-léeg naa am spécification ndax léeg-léeg man ci convention yooyu wala ci yaxal yooyu nga xam ne day wax ci yenn level yu ne noonu dafa am boo xam dañ koy bett di di ko jagale jagleel boo xale su boobaa xale xoolatuñ ci góor la war a jublu loolu danañ ci ñëw ci kanam kon gis ngeen ni jigéen ci gàttal mën naa firi ku góor ko ko mën naa firi ku dul góor koo xamante ni majeur la su dee ci lislaam itam euh, lu ci lu ci am la lu ci am la léegi dañ ci jëfandiku baat jigéen kese du gis ñoom ñëpp léegi nag dañ ko tàqale comme bu gisee jublu xale bu ndaw ndax dafa am loo xamante ni lislaam daf koy may ngir ne euh, xale la ba noppi doon jigéen loolu day day lu lu gudd gudd waaye dama gis ne ci bu njëkk bi mooy euh, jigéen la rek dañu boole ay masala maanaam ay ay ci dund bi te xale bu ndaw parental ak liir bi parental bi xale bi jànq bi ba ci jigéen bi yëpp dañ koy boole ci nga xam ne dañ ko dañ ko takkal ñooñu ne dafa wax ñoom ñëpp ñoo ko waaye nag ka ci gën ku ne dafay laaj day soxla dañu attention particulière maanaam ñu gën a sonn ci ay mbiram gën koo toppatoo loolu day tëj ci su dee nag ci bi naan ko amul 18 ans lislaam xam nga xamul doon dëgg-dëgg ndax euh, nit ki ngir su dee góor a mën naa dem ba 18 su dee jigéen fukki at juróom-benn yu mel noonu waaye dafa am yeneen mandarga yoo xam ne mooy wan ci majeur mooy lan ci lislaam ci gàttal mooy lislaam tëgg ko jëf tëgg ko jëf nga xam ne da koy ne ko war ngaa def nangam soo ko defut am nga ci bàkkaar war ngaa bàyyi nangam soo ko bàyyiwut am nga ci bàkkaar ci biir loolu am na ci yenn convention yoo xam ne donte eh, day day eh, indi lii waaye dañ ko teg loolu nañ ci dugg benn yoon ci wàllum xale su dee maanaam ci xale li mu tuddoon léegi day ci dugg kon waxoon ci jigéen ñaari sens yooyu yow jël sens bu njëkk bi rek xale mooy lan euh, normalement ci li ëpp règle générale mooy dañ naan ko fukki at juróom-ñett su fekkee ne nag ci yenn convention yi comme bu OIT mooy organisation internationale du travail ñoom fukki at ak juróom lañ ko def ndax maanaam xale bi dafa am ñu bañ koo liggéeyoo nangam nangam waaye xale boobu ñu tax wax mooy borom 15 ans ku xas am 15 am na am na benn nekk daal su dee lislaam nag moom xale bi dafa am ay marxal xale bi dafa am li ma waxoon ci maanaam bu njëkk mi mooy képp koo xam ne majeur agut kon moom jigéen gay ñoo ko bokk comme jigéen bi tudd doon képp ku majeur agut xale la waaye nag googu lan la mën naa am doon ci at yi naa doon gis baax su dee jigéen mën naa doon am kaaraw bokkutaan su dee góore wala gént waaye nag kii ñu ne amagut loolu wala gisagut lii moom aw xaaj ay étape la ay étape la dafa am koo xam ne lislaam fa mu koy tàmbalee su dee su dee xale ko tudd ci kanam su la neexee sax ñu ne ba mu koy tànnal ndey wala ba ñu koy tànnal am na yellee ci biiru ndeyam am na yellee su doo soo juddu toll ci nàmp am na yeneen xale bu ndaw ba am juróom-ñaari at yelleef nag boobu ay yelleef kese la amoon daanaka léegi ci lay commencé am ay ay devoir maanaam dee gis am ko ci ay yelleef ko ko tuddee su dee lislaam nag yelleef la ci ñoom waaye warteef la itam benn su amee juróom-ñaari topp te su amee juróom-ñaari at ko ci kanam dañ koy digal julli su amee fukki at nag wax nga digal kese duñ bokk mbaraan xëy na noonu nga xam ne eh, maanaam bëgg wax na rek xale bi foofu du tàgg ne benn niveau ay ay ay niveau la kon loolu mooy xale ci eh, lislaam ak ci système bi jëlee ñëwee ne ci eh, xuquuq wala yelleef eh, moom itam mm, day wute ci diggante ndax ndax mu jóge ci ci ci droit ci li ñuy wax notion euh, fondamentale de droit suñ ko jàng su tubaab yi dañuy tàqale ay école maanaam kii école allemande la kii française ak yu mel noonu loolu day gudd mooy yelleef mu simple lool wala boog lan mooy droit droit euh, suñ ko doon gën a leeral ci suñu mbokk yi dañu leen euh, pièce la pièce monnaie xaalis dafa am siis am teg dafa am siis am teg bii mooy tudd yelleef bee moo tudd wareef wala warte ndax lépp lu yelleef la ngir diw kon warteef la ci keneen keneen moo ko war a sàmmal yelleef boobu masalan su ma nee moo xam lislaam la moo xam système bu tubaab yi accordé nañ nangul nañ ndaw ak ci dund ak ci jàng ak ci euh, maanaam am paj xam nga ñetti ak ngi ni moom moo moom yelleef bi kam koy sintoo kooka warteef lay doon ci moom mu sàmm dund xale bi sàmm may ko mu jàng sàmm euh, wér-gu-yaram loolu moo tax may leen li ñu wax yorlee soo ko gisee comme pièce ko ñu ni waaye war teeka ñu ni kon li ñu laaj mooy ñu tëral ay loi ay règle yu yoo xamante ne ci lañu war a jaar moom lañu sàmmal xale bi ñun ñu ko war a sàmmal kon war teef la ñun xale bi nga xamante ni moom mooy moo mooy bànneexu wala mooy eh, tamatoo ci loolu kooku yelleef la ci moom moom nag bari na lool suñu wax ay xaquq wala ay yónneel bari na lool waaye am na lu koy tënk ci yu mel nii am na lu koy tënk benn koo judduwaale ba mu juddoo dafa am ngir ne doomu aadama moo am yelleefam da koo judduwaale ngir ne doomu aadama la ci waxtam ak ci gone ci dund ci jàng ci yar ci wér-gu-yaram eh, ak ci ñu ko eh, aw yaramam ko alalam yooyu ne eh, xam ne du caagee loo xam ne dañ naan ah tënk ko kii mu ngi garaaw soxla wu déedéet moo tax bu yàgg yàgg léegi nag euh, ci lislaam dama leen tuddaloon ne leen euh, loolu xam naa sëñ Moussa da nga ci ñëw xadaasa xadaasa yoon yi mais dafa mel ne ni lay gëm la mooy am na sax ñoo xam dañ seen maanaam lislaam ci boppam amul li ñuy wax liberté walla amul droit ndax ñoom dañu jàpp lislaam lépp rek ay warteef la ci nit ki war la war la waaye li ma tuddoon sànq warteef bu ne su jëmee ci doomu aadama joo xamante ni moom moo ko moom waaleykum salaam warteef su jëmee ci doomu aadama doomu aadama jëkk ko moom loola droit la ci moom loola droit la ci moom léegi nag ci foofu dañu gis ne benn ñoom ñaar xaw nañoo wuute wuute bu njëkk bi tuddoon naa ko dañoo bokkut fu ñuy balluloo seeni àtte lislaam ci chariyaam wala légitimité mi ngi ko jëlee ci suñu borom subhanahu wa taala su fekkee ne tubaab yi la ñu ngi ko jëlee ci ñoom li ñu tuddee contra social mooy nit ñi ñoo ci dëppoo kon nit ñi lu ñu dëppoo tey rek war nañ koo mën a def loolu jeex na bi ñu des mooy lislaam ci su li ñuy wax sujet de droit maanaam kan la euh, droit bi jëm ci moom ci jigéen ak xale xam nga tuddoon naa fi ne. lislaam day taqale ci diggante jigéen akub jànq akub jànq maanaam xale bu wala akub parental moo tax euh, oh, loolu di benn ñaareel mooy amuñu majorité euh, maanaam jóge ci ndaw jëm ci ki amul at ci lislaam en tout cas at fixe ndax am na yeneen mandarga yu ma tuddoon yoo xamante ni moom moo gën a man a doon xaddu faasil moo gën a mën a déterminer daal diggante génn ci ndaw jëm ci jëm ci mag moo tax dangay gis ne foofu maa ngi ci ci jigéen am na luy tàqale nag diggante xale bu jigéen ak xale bu majeur ak atte yu baree baree bari yu cay aju par exemple xam ngeen ne ku jigéen ki ca nañ koy maye bokkut ak mag mi xale bu ndaw bi euh, alalam dëgg la moo ko moom waaye na mu koy soppaxandikoo ak ak ko yoral yooyu yëpp dafa am ci lislaam muy tafsil bu bu bu bu bu yaatu lool boo xamante ni xajul fii beneen bi itam mooy lislaam ba muy wax àq jigéen daf koy taqalewaat benn jigéen gi parce que soxna la moo tax mu am àq sàngam fi mu doon li ngeen koy nuru lu ko xeet loolu soo ko xoolee ba ca biir maanaam ci lu bees li amu fi en tout cas ñiy woote yenn yi bokk par exemple nañ jël nañ jël soxna soxna day am àq ci can can mooy lu njëkk soxna day am àq ci dëkkal ko maanaam wutal ko fu mu nekk day am àq ci dëkkoo ko day am àq ci wodd ko ak dundal ko lan moo tax mu am ko lan moo tax mu am ko mooy ndax soxna la jigéen la waaye soxna la am na ci détail yoo xam ne soo ñëwoon fii ci luwaay yi du mën na ko bañ a ñuy woote yu bees yi fi mu toll nii euh, mu tëddi muhur euh, can can day topp boroom kër gi ba keroog muy faatu muy bor bu mu ko war a fay bu mu war a fay soxna si dëkkal dëkkal su ñëwee ci kër gi na mu ko war a dëkkale moom la war moom moom moom góor gi dépense jigéen gi moom la war ak koddaay li te yii surtout sax nag ak tendance yu bees yi xew daanaka day waaj a jeex ndax li ñu bëgg mooy Euh, ñoom euh, dañuy jàpp ne taxriir maanaam dañuy libeere jigéen mel ne dafa doonoon ab jàmm kon am na yelleef yooyu euh, yoo xam ne góor gi su demee ba mënu ko mën naa sax nutati tas sëy bi waxuma ne loolu waaye li gën a yéeme mooy dañ naan la jigéen ak lu mu barile barile alal ab dundam mi ngi war boroom këram yooyu maanaam kon xool na fi jigéen gii ni mu ko xoolee ba mu may ko yelleef yi mooy lan ndax soxna la am na koo xam ne lislaam ni mu ko xoolee parce que jigéen la waaye nag day doom moom itam mu am ay yelleef yelleef yu baree baree baree bari par exemple euh, du ma ci tudd tànn ko boroom kër walla soxna ndax loolu mën naa ñëw ci gone waaye euh, masalan comme que jigéen la ak attention particulière bi mu war a am xam ngeen saasam nee na ku yàlla may ñaari doom yu jigéen maanaam mu sàmm leen aar leen mu yar leen bokk dama leen war a yare maanaam yàlla na ko may àjjana wax na fi yeneen yu bare bari ci xeet yu mel noonu te am na ci yoo xam ne soo ko dee wax sax da dul yenu maanaa waaye sunu mbokki naar yi toll nañ foo xam ne jàppoon nañ ne te képp ku la ko wax ndeyam wujj na ah astaxfirullah bari na ci bopp nga xam ne fi mu doon ndekete tubaab yaa ngi ñu dugg téyeguñu ko kon foofu li ma bëggoon junj foofu rek mooy am na fi yelleef bu baree bari euh, liggéey mën na koo def ci ay chartam am na àq ci am moomeelam moom jigéen moomeelam moo koy moomal boppam moo koy géreel boppam nga xam ne maanaam yoonu kenn nekku ci su fekkee ne mi ngi ak xelam nag laa wax beneen bi ni wax naa gaa yi ni leen xëy na sax détail la waaye ni euh, nga xamante ni moom la ñuy fonke aw turam sunu mbokki tubaab yi de xool ci kee képp ku ci am borom kër sant borom kër wala lay yóbbu ma ne loolu fi mu doon ñun waroon nañ cee def musaayada tuuti su ñëwee ci ji ci xale itam yelleef yi nañ bàyyi xel nag ci yelleef yi maanaam am na ci loo xam ne euh, làmb ju tas la gis nga yelleefuk fës wala li ñuy wax liberté d'expression maanaam sañ naa wax xool léegi liñ ko liñ koy fésale xool ko ci ci ci jumtuwaay yi ñu tasaare xibaar yi jigéen soo dee gis dañ koy solal loo xam ne maanaam mën naa bañ a jekk muy wax su lu ñor jotee mu ree su lu ñor jot mu ree maanaam feeñu daal loo xam ne kenn xamu ko am na ci barab yoo xam ne barab yoo xam ne euh, ñañ fay teg sax ñuy jaay ay jigéen lañu doon dañu solon lu gàtt ak yu mel noonu nga xam ne dëgg-dëgg dañuy wax waaye nag de kii dañ ko aw yaramam la ñuy jaay léegi ñu gëm gëmloo ko ne sañ ngaa def loo neex mu jaay boppam yaakaar loolu liberté la maanaam jigéen di seeg moroom jigéenam wala bi billahi taala jàpp na loolu liberté la soppi ku na ko neexe am sax ñoo xam dañuy dem ba far soppiku maanaam seen i jëmm jël jëmmi góor wala góor def lu mel noonu loolu da ci am ñu bëggoo koo tuddee liberté ak euh, li ñuy wax avortement médicalisé yooyu yëpp la ci am yooyu lislaam daf koy tere ñoom nag yu mel noonu nag la ñuy jàpp naan gis nga lislaam li mu leen def amu leen sañ-sañ ba nga ba nga nangulee yàlla boobu nga ñàkk sañ-sañ total su dee nag ci ndaw ñi la euh, moom itam am na yelleef am na ay yelleef yu bare bari léegi nag su fekkee ne ci droit yii la surtout ci convention internationale ci droit de l'enfant da ci luy toll ak juróom-ñeenti yelleef bu njëkk bi mooy liberté ci mu dund bi ci ci mu jàng mooy ñaareel bi ñetteel bi ci ñu saytu ko wér-gu-yaramam ñeenteel bi ñu fexe ba duñ ko doyadal duñ ko stigmatiser yu mel noonu juróomeel bi maanaam gën koo sàmm su fekkee ne yàlla dafa def ci moom laago juróom-benneel bi euh, mu am identité maanaam mu xam fu mu bokk daal askana la ko ci ay waajur xam naa yu mel noonu juróom-ñaareel bi mu am droit ci fo ak euh, li ñuy wax ak divertissement surtout euh, mooy juróom-ñaareel bi juróom-ñetteel bi am droit ci am fa nekk ci famille ñu sàmm ko juróom-ñeenteel mujj ci am droit wax li mu bëgg yooyu nag bi bare bare ngi ci biir soo duggee ci détail da ngay gis ne am na ci réew yoo xam ne sañ nañ ku ci xuloog baayam mu wax ko lu ko naqari rek mu woote benn numéro boo xam ne ñetti chiffre lay composé ñu jël si baay bi léegi tëj ci kaso bi ci kanam tuuti yaakaar naa mën nañoo egg foofu nga xam ne ñoom du ñu wax ba xam dóor yi tar naam tarut est-ce que ab yar rek la lan moo tax lan moo tax mu dóor ko rek la ñuy wax. am na ci yi ma tudd nii yenn ci liberté wala droit yoo xam ne l'islam nangu na ko sàmmul ko te lislaam yaakaar naa ni mu ko defee itam yaakaar naa ñoom egg nañ foofu am na yu ma ci tuddoon am na yu ma ci tuddoon waaye nañ xool ci bu njëkk bi bi l'islam may. jigéen asawlaa xale ndax ñii xam nañ ko ba koy sóoraale wala boog ndax ñor na leen bañ koy sooraale mooy tànnal ko ay wayjur yu baax tànnal ko ay wayjur yu baax amul benn droit bu koy kifi ne ah man de xam ma ko maanaam ci convention internationale yi nga gis wala ci sunu euh, loi ak législation yii bu naan la xale bi nañ ko tànnal euh, baay bu baax wala ñu ko tànnal ndey ju baax yombul ñoru leen sax te pourtant nag tàmbali bi foofa la tàmbali bi foofa dégg naa sëñ Bachirou daana wax ne euh, nu ñu ko waxee fortaatum soxna pañax tiitum doom loolu jàngaleem sëñ Tuubaa la loolu mooy bu ci njëkk bi ci des mooy su xasee formé ci biirum ndeyam ak xam ci dund ak xam ci dund fi mu toll nii soo dee gis ñii e, tubaab yi ñaare fa ñuy wax ak xam ci dund mooy su juddoo waaye fa foofee nag foofee lislaam daf koo kii su nekkee janiin ci biirum ndeyam dafa am àq kenn waru koo rey ndax koo rey rey nga bakkan ak daan ya ci topp ya ci nekk waxuma dara waaye àq rek ngir maanaam mu am nu mu màgg gu normal ci biirum ndeyam xam nga ci laatu doon ne dañ ko dañu war a dundal ndeyam donte waa ji dafa fase sax ndey ji euh, talaax baat te da ko war a dundal ah nu ko waxee askan woon na haythu sakantum min wujdikum daal di wa in kunna ulaati xamlin fa anfiqu alayhin xatta yadana xamlahun muy bu nekkee ci biirum ndeyam waaye su demee ba juddu fa in fa in arda'na lakum fa aatuhunna ujurahunna wa atamiru baynakum bi maaruf su fekkee ne sa soxna woon maanaam fase na ko te ku fase moom ak pase mi nu mu mënti deme su fekkee ne xas na am doom rek xam nga amatul rajaa moom ndax idda jeex na teewut da nga ko war a dundal maanaam su fekkee ne moo la koy nampalal sa doom mu ne na nga ko fay am na feneen wal walidaatu yurdaan awlaadahunna xawlayni kaamilayni li man an yutima ay wa ala al mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil maaruf mawludi lahu mooy baay bi war nay dundal ak a wodd ndey ci jamono yi mu koy nàmpal ak yu bare bare su fekkee ne nangu koo nàmpal kon moom baay bi moo ko war a kii gis nga yelleef boobu waxu gën avant muy egsi foofu itam wax naa ne am na àq ci am alal ci ndono li mu nekk jëniin doon juddoogul mu war a am alal ci li fi baayam bàyyi yam ceeg taaw bi donte taaw bi mën na ko bàyyi ñoo ci yam képp la ca taaw ba day am su góor la moom mii mook taaw ñoo ci yam kenn du ci taaw bi sax su newoon sama baay juróom fukki at yëpp maa ko yor yoonu kenn newu yàgg moom yéen a ci yam képp képp képp am na ci nag yoo xam ne moom fa lillahi alhamdu wal minnatu ni ñu koy doxalee moom baax na lool taa day ñëw daanaka akimoo lépp du nangoo miraas kër gi nag mukk ci àdduna dëkk bi léeg sax su amee barke da ci tabax terrasse bu mag mag dëkkal ci ay doomam te fi ne wax guñ ko ne fii nga moom de ñi mbokkal baay xëy na kii juddoo gu doole day doog a juddu fa moom fàtte leen te moom moo waroon moo leen waroon dëkkal dem seeti feneen comme que mën na yàlla bu mu doon borom barke nag ba taalibe yi topp ko wallaay rek. mooy tax itam am na ci loo xam nag du lislaam waaye am na àq ci am am na àq ci ñu sàmm ko ñu sàmm ko bu baax a baax maanaam ci wàllum wér-gu-yaram wala sax la koy wax naan dama laa yar ba nga toll nii pattoo làggi woo xëy na ba xaw naa kii waaye day wone rek ne def na joxal na ko ak xam ji mu ko yoraloon ci côté boobu waaye itam yar ko ak jàngal ko yar ko ak jàngal ko ndax yooyu su ëllëgee yow man xiyaam dañ koy dañ koy layoo xëy na waxtu yi moo mooy sori te sëñ Moussa war nga ci am vingt minutes moo tax euh, du yar ko ak jàngal ko moo tax ku nekk war naa bàyyi xel ci loolu waaye nag jàngal gi ak yar gi li muy firi li ci jëkk mooy na ko xamal diineem xamal ko boppam xamal ko loo xamante ni dana ci mën a jariñu ci nekkiinu àdduna moo xam métier wala xeet yu mel noonu te itam day jar nag su boobaa nag gàcco ci ga ko ci ga mooy forcé forcé fii la ñu wuute ndax xam nga waxoon naa yoon saa nee na seen seen gone yi jàngal leen julli suñu am juróom-ñaari at ñu tàmm ko suñ demee ba am fukk suñ ko nanguwul ngeen bàcc bàccal leen loolu am na ci kon loolu lépp rek yelleef la boo xam ne góor gone gi moo ko moom ndax su dul loolu su ëllëgee yomal xiyam du koy laaj am na ñoo xam sax du egg yomal xiyaam bala ñoo sol dañuy commencé xarab seen baay paa bi moom wax dëgg yàlla jàngale moo nangam nangam dañ ci nettali lu xorom waa joo xam ne du ma ne barab sàngam la dëkk mel ne damay stigmatiser waaye daal dafa mel ne bisu baayam dafa dësi gars yi yow jàngaloo kaamil ñaanaloo ko ah c'est nag man paa bi ma alxuraan quoi moo tax fi mu toll nii mënuma ko liir loolu moom fa la xam nga xam ne moom nee na daal du ma ko defal. duma ko jàngal ndax moo ma jàngalutoon mu simple te soo ëllëgee ma man xiyam mën naa am da ngeen ko danañ ko layowaat ñoom ñaar bokk na ci itam loolu lépp ñu def ko ci ñewanti ñewanti ak xikma teey ak ñewanti ak yërmande loolu ci baax la ji maanaam xale bi am na yelleef ci loolu moo xam divertissement lañ ko tuddee fële euh, wala épanouissement lañ ko tuddee dañ ko mën a tuddee daal xale bi moom am na yelleef ci maanaam ñu ñu ñu ñu ñu bàyyi ko xel ci ñu toppatoo ko bu baax a baax gis nga yoon saasam noonu la ci meloon ci xale yi gis nga ku demee ne Abdullah ibn Abbas li muy nettali ba ko yoon saasam di jàngal nu muy lekkee maanaam booba xale mu ndaw la naa ko yow ngóor si sooy sooy lekk dangay tudd yàlla wax bismillaahi rahmaani rahiim euh, lekkee sa ndajoor lekk sa kanam bul jéggi sa kanam xeet mel noonu yaa xulaam mooy xadis bu si boobu rek samillaahu kul bi yaminik kul mimmaa yu mel ne boobu xale bu ndaw la di ko jàngal ci nu beneen bi mooy itam ñeme da leen a boppam xam nga Abdullah ibn ci nett lu mel noonu xeetu lu demee aw cax wuñ doon wax nee na boobu man xam naa ko waaye ñem moo wax ndax damay xale su dul dara da nga gis maanaam saa ak ak i ndawam ak i xale yu ndaw yi comme umaama umaama sëtu bi yonent bi la sallallahu alayhi ku ñuy wax Zeynab moo ko jur Zeynab moo mag ci waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Zeynab ku ñuy wax Abul Aas moo ko yoroon Umaama moom la ci amoon ñaari doom yu góor la ci amoon kenn ki moom la ñu nett ci xadis xajatu daa bi moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, dem waaye dañuy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli Umaama ñëw mu gàddu ko nii taxaw su demee ba war a sujjóot teg ko sujjóot siggiwaat jëlaat ko te xam nga ne julli moo gën a foor fi war a waxee ak ci suñu maree xale wala xale boo xamante ni am piccam moo kii ndeysaan ah saa waay yow sa picc mi daa dee nga xam ne maanaam yërmande ci lislaam la mën a am na ko commencé wax ko am am naa ki doom ak nangam mosuma cee fóon kenn am na ñu ne sax dana ah waaw su fekkee ne yàlla dafa rocc yërmande sa xol man lu ma ci man xam ne booba mer na kon tendresse bi ñu war a am maanaam euh, gu mag gi ñu war a am ci xale lislaam dafa bëgg ñu jaare ci ba lépp lu ñu koy defal ci ñew ñeewante lañ koy defee yar ko jaarale kon am na àq ci loolu euh, sëñ Tuubaa itam gis nga noonu ñu ci meloon ñu baree bari sëñ Tuubaa dañ ko def koo xam ne dañu mel du nit daal daawut wax daawut maslaa daawut jàmmante daawut euh, ree te teew da ko daa def bu baax a baax bu baax a baax sax nag man sëñ Maxtaar Jóob ci mu moomu nettali nee na bi ñu ko indee ci sëñ Tuubaa li ma wax nag fi mu toll nii murid bari war nañ ko commenté loolu moo xam naa ko ay kilifa sax dañ ko commenté waaye kii moom moo fekkee te moom la woon baayam dafa teel a faatu ci mbas nee na keroog dafa sëñ mut jigal wala sëñ Aliou Gadiaga daal dama fàtte kan la ci wax en tout cas ñoom ñaar kenn ki dana ko soo waxee diw de dana ko jële dama gën a yaakaar nag sëñ mut jigal moo ko indi neen na ba mu ñëwee keroog sëñ Tuubaa fii la ko teg daan na ko loo ko fekk muy def mu ne ko dama koo fekk muy laaj ndékki sëñ bi wax na ah ndax yàlla ndax yàlla nee na keroog sëñ bi xelal na ataaya jox ñi man xelal ma mu jeex mu joxaat na mu ne mu dugal fii loxoom ndeyjooram ci poche am génne miskit ak dara weccat ne bëgg nga lii fii laa wax ne gars dañ ko commenté ci poche fii la dugal po poche càmmooñ bi ci loxoom ndeyjooram la dugal fii génn daal ko bëgg nga lii nee mag ñaam neel waaw. nee na ma mu daal di koy jox moo tax mu ne ma fi mu ne soo gisee wërsëg yomb ma loolu moom moo ko wax mooy loola. lii moom beneen bi itam euh, sëñ Cheikhouna Syll sëñ Moussa Syll mi da koy nettali nee na sëñ Mokhtar Syll sëñ Mokhtar Syll Mariama Kunta moo ko wax nee ko bis damaa ñëw am xam nga kan ci waa Barsàq ñooñu daal moo ne ko yow mii Mokhtar mag nga te yow daal bokkoo gaa yi li ñuy def kaay lii nga dem jébbal sa bopp sëñ bi nee ba mu ñëwee. keroog sëñ bi bu ma ko joxee euh, xaalis bi yaakaar naa kayit la xam ma kayitu fukki dërëm la xam nga nee sëñ bi lii la ko nangoo denc ko ginnaaw wax na ko ci bare bare waxtaan ak moom moom ab sëtam waaye li ma bëgg junj foofu rek mooy ñeewante gu mu amoon ci xale yi ak toog gu mu daa toog ñoom sëñ Maxtaar itam nettal na ma sëñ ma paate mbay sëñ ma paate mbay doomi sëñ Ahmadou Mokhtar Mbay al la soo dégg ñu naan Ahmadul Kabir ak Ahmadou Saxir Ahmadou Mbay mooy al ñoom ñëpp sax Ahmadou Mokhtar la ñu waaye mooy bàyyi sëñ ma paata mbay ñooñu sëñ Babacar mbay eh, sëñ bàyyi gala mbay ak ñu mel noonu nee na bis eh, sëñ bi moo leen defal poñse ñoom xale yu ndaw yi jox leen ko sëñ mataar nag moo sëñ ma paata nag moo leen kii moo leen féeti kaw ba mu ñëwee noggatu leen jël sëñ bi dafa dégg riir meeg yu mel noonu waaw subhaana lii lu mu doon nee na sëñ ma paata nag ah ñoom dañoo bañ ma kii ci moo ko ah yow waxoon naa la bokkoo ci ñoom benn ndax da leen a mag bi ci des itam moom ay waajuram a ngi dund ñii nag seen i wajur dañoo dundut mu ne sëñ bi bis itam ñëw na daal leen yéen ñi seen xam seen ndey ak seen baay féete leen ma nii nee na ñu féete nii yéen ñi xamul seen ndey ak seen baay féete leen ma ñu féete ma nii mu ne yéen xamu leen seen ndey ak seen baay ko déedéet mu lan lu ko waral ngir ndaw gi mu ne waaw mu yéen maay seen ndey maay seen baay loolu leen sëñ Tuubaa wax na ko ak yu bare bare daal loolu ma jubloo nag mooy noonu nga xam ne noonu la doon def ndaw ñi di leen ñemeel boppam ak di leen booleeg ñoo xam ne dañu bëgg mu leen di yërëm te sax da leen da leen ko daa wax bu baax a baax kon euh, day wone rek ne euh, naka jekk comme ñëwanti googu euh, am na fi yi des nag day loo xamante ni dañoo bëgg ci ñoom njariñ moo tax ñu leen di mel ne luy xaw a dur ak ñoom xaw a jafe ak ñoom léeg-léeg fi may tëje ndax léegi ñu noddu mooy tomb bu mel nii nañ koy baral di def suñ ko def colloque sax moo gën ñu baree bari séq ko ñu gën a dégager piste yi xam li ñuy wax taxaddi yi maanaam sas yi ñu am ngir tolluwaayu jamono ak nit ñi li ñuy xëllantoo jàpp na ñoom ñoo xam droit de l'enfant wala droit de la gi mel noonu ñu xam ndonol lislaam li wala njàngaleem lislaam li ak ndonol sëriñ bi ci jigéen ak xale ak fam leen teg ak la muy sént ci ñoom lu ci baax la loo xamante ni yaakaar naa su ko defee am na ci yu bare bari mën nañ cee gën a gën a gën a kii surtout que da gis ne euh, tolluwaayu jigéen ca jamono jooja ca nañ ko daan jàngale ca nañ ko daan yare fi mu toll xëy na ya yar bi maanaam njàng mi xaw bari waaye ca jamono sëriñ bi ñoom ñoo ko gënoon a fonk surtout ci ci yarub diine waxuma ya njàng mi gis waaye diine loolu des na bu baax a baax li ci des nag mooy ku nekk da nga xam lan nga bëgg ak la nga waxanteeg sa boroom. su nga xam ne lii mooy njàngalem lislaam nga tënku ci te ñu bañ nag télé yeeg ak jumtuwaay yi nga xamante ne moo ñu dikkal ñu bañ ñuy yóbbaale ba tax ñu def lu dul noonu wala ñu topp ci ñoo xam ne bokkuñu pas-pas bokkuñu démb bokkuñu gisin te mooy tubaab yi sëñ Moussa kon daal ci tënk li fi indi woon tënk gi sax xaw na far tinkiku waaye su ñëwee rek incha allah taala da ko gën a jekkal asalaamaaleykum waaleykum salaam wa euh, sëñ Mbàkke euh, waxtaan wi am na solo lool euh, xam naa tënku na ndax bëri na ñi doon suivre ànd ak man ñépp mu naan loolu lu gudd a gudd la wala ngir bañ a loolu day wane ne kon waxtaan wi des na lu bëree bari waaye lii mooy liñ ci mën a tënk ci jataay bi am na solo lool nag ndax gis nañ nim delloo. Euh, ci njàngalem lislaam nan la terale jigéen ak ndaw lan la wax ci seeni àq ak seeni yelleef naka lañ leen war a taxawoo naka lañ leen war a yare waaye tamit euh, ñëw na ci euh, tubaab yi nan lañ bëgg a gëmloo ñeneen ñi yeneen gëm-gëm yoo xam ne bokku tëg njàngaleem lislaam naka doon tamit bokku tëg ak nite waaye tamit wàcc na ba ñëw wax sëñ bi naka la fonke woon gone ak euh, naka la ko jagleeloon lu bëree bari euh, ci waxtoom yittewoo woon ko lool euh, xam naa ne ni mu ko ni seddalee waxtaan wi ak ni ko tereete du am lu bëri loo xam ne dañ ko ci yokk waaye rek bu fekkoon ne dañuy waxaat dara luñ ci sof xanaa du weesu jaaraat fi mu jaaroon ndax dafa dikk ak ñun ci Euh, balluwaayu àq ak yelleef yi nga xam ne mooy àqi jigéen ak yelleefi jigéen ak ndaw ci lislaam ak ci tubaab yi kenn ku nekk fan la balloo wax ne xaakimiyatul islaam wala lislaam euh, ni muy jëlee alxaakimiya maanaam kan moo war a euh, tasarruf ci mbindeef yi kan moo war a digal mbindeef yi tere leen wax leen rëddal leen yoon wi ñu jaar kooku mooy kan kooku mooy yàlla kon Euh, bu ñuy jël ay xuquuq ak euh, wala boog bu ñuy jël ay àq ak yelleef lépp ñu ngi koy tibbee ci loo xam ne yàlla da ko wax yu yonent bi moo xam alquran la walla wala sunn la buñ demee ci ñi nga xam ne nag ñooy tubaab yi ñoom fa ñuy balluloo euh, ñëw na sax am na lu mu xaw a tënk lu jëm ci seen histoire ci wàllu googu muy naka lañ fan naka lañ def ba ci âge Euh, de lumière yaakaar na doon ko waxee biñ ci egsee euh, naka lañ seen xalaatkat yi seen xeltukat yi naka lañ doon bindee di wax ko ci mel ne Jean-Jacques Rousseau ci al-aqdul ijtimaa'i muy contrat social boobu ak ñu mel ni Montesquieu ak ñu mel ne Voltaire ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne wax nañ euh, naka la ab société war a war a tëdd te loolu lépp nag nañ bàyyi xel ne mi ngi soqi ko ci yenn Euh, révolution yoo xam ne ñoom tubaab yi defoon nañ ko moo xam France la wala Amérique la wala Angleterre ci kaw eglise bi nga xam ne moom mi daan woote woo diine moo contrôle lool xam-xam moo xam xam-xam boo xam ne xam-xamu euh, science bi ñu bi ñu xam la wala boog xam-xam boo xam ne ci philosophie la aju dañ ko contrôle lool moo tax ba demee ba ñoom ñëpp ñu fipp xalaat yi ñu doon bañ yi église bi doon bañ xalaat yooyu génn yëpp daal di génn Euh, jëmmi Europe ak Amérique wala boog ñu wax rek euh, Occident yi daal di amaat yeneen gisiin ci naka lañu war a doxalaate daanaka foofa la sax euh, mustalahaat yi wala terme yi soqi ko ndax ci lislaam amuñu woon lu ñu tudde ay xuququl mar ak xuququl insaan maanaam ka mustalah maanaam amoon na waaye lan moo tax mustalah bi amul woon ndax problème bi posé wut woon foofu kon fa problème ba posé foofa la foofa la mustalaxaat yi di soqi ko maanaam foofa lañ gis ne fa lañ néewale jigéen doole fa lañ néew fa lañ xañee gone àqam naka noonu tamit loolaa tax mus euh, terme yooyu daat fay soqi ko dañ koy xool rek lu mel ne lu mel ne laïcité laïcité daanaka mën nga ne euh, France ak ak Europe ak foofu noonu foofu la gën a siiwee ci Amérique Amérique daanaka baat ba du fa jib baatub laïcité duñ ko wax da nga dégg daal ñu naan liberté da nga dégg ñu naan démocratie waaye ni Euh, laïcité doo ko déggee Amérique ndax lan loolu mu ngi aju ci histoire France ak histoire Amérique benn bu nekk nam euh, nam tëddee kon lan moo tax euh, ndax lislaam ci njàngaleem mu leer dikkal nañu ci bu ñëwee ci alxuraan sax ba ci yi nga xam ne sax day jafe lu mel ne fase dangay dégg mu naan jigéen buñ ko fasee dañ ko war a jox dara waruñ ko fase rek mu dem waaye dañ ko war a jox dara walil mutallaqaati mataa'um bil ma'rufi haqqan alal muttaqin am na fu muy wax tamit wa matti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamilan maanaam dañ leen a war a jox dara foofa bu ay jafe-jafe amee sax da ngay gis égalité bi lislaam di doxal naan wa in xiftum shiqaaqa baynihima fab'athu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha da dañuy maanaam dañ koy àtte dañuy wax mbokki kenn ñëw mbokki kee ñëw loola wuute ak lool ci ni jigéen wàccuwaay bi amoon ci société bi moo xam ci arab yi la wala fu mën a doon ci àdduna bi daanaka lislaam moo indi gisin wu bees woowu ci niñ war a niñ war a toppatoo jigéen ci ay mabaadi am ci ngay gis muy dénkaane wa ashiruhunna bil ma'ruf sànq euh, am na aaya bu yéeme bu suñ bi junj boo xam ne sax daa boole àqi gone ak àqi jigéen ci benn fa in arda'na lakum fatuhunna ujurahunna maanaam foofu noonu maanaam doom ji bu ab sëy tasoon euh, yàlla tere Euh, ba doom euh, ja ñu war koo nàmpal sax maanaam lislaam warta bàyyi noona doom ja day wax ne bu ko bàyyi ji jël ndax doom ji daa am àqi war a nàmp waaye na ko bàyyee yaayam mu nàmpal ko kon loolu àqi doom ji la waaye bu ko yaay ji nàmpalee tamit na ko bàyyi ji fay kon loolu àqi jigéen la maanaam ñaari ñu doon wax dafa daje far ci ci ci benn aaya ci benn aaya bi kon euh, révolution yooyu ma doon wax sànq ne moo jiboon ci Europe ba tax ñu commencé waat di indi li ñuy tuddee euh, contrat sociale di tëgg ay ay institution di tëgg ay luwaay yoo xam ne yuñ tëral la ngir di ci mën a àtte societé bi yooyu yëpp daanaka ginnaaw bi ñoo définiraat naka lañ war a mën a jëflanteeg jigéen te teewut ba ñuy def loolu ña ngay xañ jigéen lu bëree bëree bëri dañ ciy joxe benn misaal rek lu mel ne euh, mouvement yi euh, féministe yi xew féminisme lu yàgg-yàgg la daanaka mën nañ ne ay ay dix-huitième siècle dix-neuvième ba vingtième siècle yëpp mu ngi mi ngi doon am waaye fan la xarakaat euh, ni sawiya wala féministe yi nii mouvement féministe yi fan la soqi ko mooy ne ñoom jigéen ñi ba léegi nii sax ñu ngi am ay jafe-jafe dañoo seetlu ne dañ leen a xañ àq yu bëree bëri ndax ci Europe bu ab sëy masaan tas maanaam jigéen sañuta laaj ne doom ji man lay féeteel doom ji faw baay ba lay féeteel léegi naka noonu tamit jigéen ñi xañoon nañ leen ñuy donn tukki bu ñu ko mosaan def dañuy laaj permission loolu lépp Europe la doon xewee naka noonu tamit euh, voté amuñ ci woon droit voté voté donc bi ñu amee àqi voté bi tabi voté xewee yàggut ñoom amuñ woon sañ-sañu voté ñoom jigéen ñi ndax jàppewuñu woon leen ay nit man ngaa wax loolu kon euh, yooyu noonu muy mouvement féministe yooyu bi muy juddoo Europe loolu moo ko taxoon di woote foofu la tàmbalee woon waaye ginnaaw ba jamono ji dem na ba xaabaabal ba egg foo xam ne sax waru fa woon a àgg ndax am ay eh, idéologie yoo xam ne ñoo nekk ci ginnaaw di ko suuxat ak di ci jàllale tamit seen yeneen eh, message yoo xam ne eh, yu wërta jàll la ndax ci féminisme boobu indi na yeneen jafe-jafe ci société boo xam ne bu Europe sax mën nañ koo wax ndax dem nañ bay wax ndax ndax lañ naan nuñ koy waxee addaxt yu yu walidul infijaar maanaam boo bësee ba mu ëpp nit boo ko xañee ay droit ba mu ëpp ba mu ëpp bis buy fipp rek yow dootu ko àttan mel na na xew-xew yi xewoon Sénégal bu yàggul da ci fes kon nag jigéen ci réewi Europe yi loolu dafa amoon moo tax ginnaaw bi nag bi ñoom seen xarakaat yooyu jibee seen seen mouvement féministe yooyu ci lañ tàmbali nag naan xuquuqul mar'a ak naan xuquuqu tifl léegi nag foofa la euh, mustalax bi soqi ko mën nañoo wax waaye yëmut ci rek woote woon loolu waaye daa dem ba egg ci eh, di ñu jàppee eh, kilim maanaam li ñuy tuddee eh, mariage précoce maye maye goo xam ne dafa teel waaye ñoom féminisme yi biñ biñ biñ tegee pression état yi wala boog luwaay bañ yaxal di ko tere yëmuñ ci loola dañoo dañ dañ ko weesuwaat jàllaat ci leneen dañoo jàllaat ci ginnaaw ba mayagut yàlla dañ koy tere kon léegi nuñ mën a def am na nit nit rek la yàlla moo bind góor ñi bind jigéen ñi am na foo xam ne bu ñu fa tolloo nuñ mën a def am loo xam ne dañ koy yëg léegi nag la ca lislaam tegoon muy ab euh, solution mooy ñu dem kër wala boog ñu takk soxna léegi nag loola bu fekkee ne dañ koo aj ba mu gën a sori daal di ubbil jigéen yeneen bunt yoo xam ne ubbiluñ ko ko woon kon bu boobaa ñii marié dootuñ bari léegi tamit caaxaan yi dana bari léegi lan moo xewaat ginnaaw bi li xewaat ginnaaw bi mooy ay pilules yoo xam ne day tee day téye ëmb léegi ñu fexe ba loolu ñu yoonal ko tamit waaye yëmuñ ca ñu dem ba ci avorté tamit ñu yoonal ko wax na la ne kenn ku nekk da nga am droit ci avo ci avorté avortement boo xam ne dañ ko dañ koy dañ koy yoonal waaye mën nañoo wax ne mouvement féminisme yemuñ ci loolu am na côté boo xam ne sax ñëwuñ ci ci wàllu liggéey ak wàllu ay euh, polygamie ak yeneen ak yeneen waaye dem na ba eggaat ci beneen côté boo xam ne sax yeneen lobby dugg nañ ci mouvement féministe yooyu bay indi ak euh, li ñuy xam xuma ngóor jigéen lañ ko dox ma jigéen góor maanaam ne jigéen euh, du caage ne ndax foofu ñi ngi ko jaaree ci ne jigéen dafa war a am dafa war a indépendante dafa war a am liberté dafa dafa war a sañ dafa war a doxe sañ-sañam ci loolu ñu ne ko kon yow nii la góor jële di la sëkkatal di la caxat caxate mën naa ñàkk yow jigéen ci sa bopp li nga bëgg jigéen mën na la ko jox nga xam ne loolu euh, lobby LGBT yi ak yooyu bokk na ci ñi ci gën a dox yow li nga bëgg jigéen mën na la ko jox kon nag yow wéyalal te bàyyi léegi maam jàpp ne sa dund mënta baax bu fekkee ne nekkoo ci ron góor wala bu fekkee ne góor yoru la euh, biñ demee ci loolu yemuñ ci sax waaye dañoo ñëw di ko layal euh, scientifiquement dañuy ñëw di ko layal di wax naan euh, jëmmi buñ gisee jigéen goo xam ne daa jeng jëm ci jigéen wala góor goo xam ne daa jeng jëm ci góor te loolu naturelu li naturel mooy góor jeng jëm ci jigéen jigéen jeng jëm ci góor waaye bu fekkee ne góor moroomu góoram lay wut jigéen di wut moroomu jigéenam kon bu boobaa loolu naturel wut waaye nag ñoom lu ñu dugg rek dañ koy bëgg a yoonal ñu bëgg a wax ci xam-xam ne ñi mel noonu moo xam jigéen ñi la wala góor ñi la bu dee jigéen ji ci maanaam jëmm ji nii ci physique bi bu fekkee ne jigéen la it maanaam li nekk ci biir moo xam ci côté ci côté psychologie la wala ci côté biologie wala sax physiologie loolu lépp maanaam lu góore la kon moom ci boppam day mel ne jëmm ji ci kaw ci physique bi nii rek moo doon jigéen waaye la ca biiram loolu lool góor la maanaam noonu lañ koy layale ci xam-xam bëgg a wax ne li ko yàlla moo ñaaleel kon ca biir loolu mooy góor loolu moo koy tax moom ci boppam muy injizaab muy xëccu wala boog loolu tax jigéen ne moom di ko attiré te fekk euh, kon loolu ñu bëgg wax ne ci ADN la xaw ma xaw ma maanaam problème génique lañ ko bëgg a def ne ci ci li ko yàlla moo la te ci bind bi la te loolu dafa dem ba wérut wala boog buñ iftiraadu bu fekkoon dañ ne waa loolu léegi nañ nañ xool ne loolu wér na am na ñuy def am na ñoo xam ne leen yàlla binde wala boog am na ñoo xam ne violence ci lañ jéng jëm maanaam ray maanaam deret rek dañuy dañuy dañoo mar deret maanaam ray jëm genn banditisme gu métti moo nekk ñoom ñooñu de bi ñu leen xoolee ci xam-xam dañuy gis ne tamit euh, génétiquement wala boog ci wàllu ni leen yàlla mooñee ñi mu leen bindee ñoom it euh, mën nañ leen mën nañ ko analyser analyse boobu daal ne ci seen wàllu biologiquement noonu lañ mel euh, psychologiquement noonu lañ mel kon léegi lan moo tax ñooñu ñu leen jàppee ay criminels di leen tëj euh, ضيف أتى بالبسر والمداد علا وسعلا وترهيبا بلا حداد yaa xayra dayfin aataa bil bisri wal madaadi ahlan wa sahlan wa tarhiiban bilaa hadadi yaa xayra dayfin aataa bil bisri wal madaadi ahlan wa sahlan wa tarhiiban هيبا بلا حدد يا خير ضيف أتى بالبسر والمداد أهلا وسهلا وترحيبا بلا حدد يا خير ضيف أتى بالبسر والمداد ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadadi yaa xayra dayfin aataa bil bisri wal madaadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadadi yaa xayra dayfin aataa بالبسر والمداد أعلا وسهلا وترهيبا بلا حداد يا خير ضيف أتى بالبسر والمداد أعلا وسهلا kon ban bi la xadadi xam naa li ma doon wax mooy ne ñoom dañuy bëgg a layal euh, loolu nga xam ne ak yàqute la inxiraaf la moom la ñuy bëgg layal di ko jaarale ci xam-xam waaye buñ ko jaare woon ci xam kon bu baax dana bëri ay crime yoo xam ne danañ mën a jaare ci xam-xam tamit layal layal ko te sax loolu daa amut maanaam li ñuy wax ne loolu ci ni yàlla di mooñaalee nit ki la loolu amut loolu de bu cay am tuuti la cay doon ci ni ko yàlla moo ñaale waaye li ci ëpp mu ngi ci ñu yare nit ki ak ci environnement bi nga xam ne fi la fi la màgge euh, ak it euh, idée yi nga xam ne moom lañ def ci boppam ci ci ci bi muy jàng maanaam am njàng ak niñ koy yaree ci kër gi ak environnement bi yooyu yëpp da ci jouer te loolu sax pourcentage bi mu ciy jël moo ëpp fuuf li ci euh, ni ko yàlla moo ñaalee di di di jël kon loolu ay waxi naqsa xandang la yoo xam ne Euh, féministes yi euh, wala xarakaat nisew yi ndax bu ne ay ay ay nag du caagi ne ay jigéen dong ñoo ci nekk di wax am na ay góor yu ciy nekk di leen jàppale maam maanaam doonuñu ay jigéen dong euh, te xaabaabal gi dem na ba egg sax ci ñoom ñu saña wax leen ñuy sensé ñu wala boog ñuy soppi seen seen awra moo xam góor la wala jigéen kon yooyu yëpp daa doon ay jafe-jafe yoo xam ne ci fam tàmbalee muy di woote àq ak yelleefi jigéen fala la tàmbalee waaye ginnaaw bi lu baree bari ci ay idéologie dañ cee dugg ba yàq ci lu baree bëri wuuteeg njàngalem lislaam mu leer mu tegu ci ak nite ak xam-xam moo xam ne it buñ ko toppee euh, ci gindiku la ñuy nekk ba faw yaakaar naa ne ki doon def waxtaan wi yaatal na ci euh, lu bëree bari li may tëjee rek mooy euh, coow loo xam ne am na fii Sénégal am na Mali muy lu aju ci Euh, éducation sexu euh, sexuelle mooy ni ñuy ni ñuy jàngale njàngale mu aju ci lu jëm ci góor ak jigéen te loolu maanaam loolu du éducation waaye mën nañ koo tuddee orientation dañuy orienté xel yi jëmal leen ci ñu gëm ay idées yoo xam ne dafa wuuteeg loolu njàngaleem lislaam dafa wuute ak suñ aada ak suñ cosaan ndax bu fekkee ne ab yar lañ ko bëgg def loolu bari na ci suñ téere yi suñ téere yi ñu daan jàng moo xam al axdari la wala yeneen ak yeneen la bu fekkee ne liñ bëgg a xamal ndaw li moo xam jigéen la wala góor la tam aju ci loo xam ne mënta ñàkk mu xam ko ci lu aju ci wàllu sëy wala lu aju ci diggante góor ak jigéen loolu dana ko xamee ci téere yu ndaw yi te bala ma koo xamee dana am at yoo xam ne moom lay am comme yeneen yi ñu bëgg a ci système éducatif bi yooyu euh, li ci bëri ay caaxaan képp la kon bala ma guddal ma bàyyi sëñ bi mu ñëw ci question yi jërë jërëjëf sëñ Moustapha Lo ci intervention bu am solo boobu dañuy profité rek di sant sëñ Mbacke Lo Mouhamed ci waxtaanu am solo yu mu ñu indil ah, bu ko defee kon ñu ñëw ci laaj yi mu ne kii dee laaj mu ne euh, code la famille bi fi nekk ndax euh, dëppoo na ak sunu diine. Euh, asalaamaaleykum ñu ngi nuyoowaat tey sant bu baax surtout sëñ Moustapha ci taaqib bu am solo bi mu def maanaam ci commentaire boo am solo bi lool. surtout am na ci yenn tomb yoo xam ne jaaruñu fa wala boog dañ koo coos jàll mu gën koo leeral jërëjëf waaw léegi mu ne code de la famille bi ñu nekk nii euh, xam nga code de la famille bi bi muy juddoo yaakaar naa soixante treize wala soixante quatorze yooyu coow lu bari bari la juddoo waale euh, ba léegi nag dafa mel ne dañagul waaw am na ci am na ci lu dëppoo ak lislaam waaye am na ci itam yu dëppoowul bari nañu ci liggéey ak ah, man gis naa ko demee yaakaar naa sëñ sëñ xaadim sil ak sëñ Cheikh Abdou Wadoud def nañ ci ba dafa mel ne ñoom dañoo recensé article yi nga xam ne jàpp nañ ne wuute na ak njàngalem lislaam ba xaw naa bari lool waaw waaye du càgg ni lépp daal bari na ci loo xamante ni dëppoowut ak lislaam bari na ci lool itam lu dëppoo ak lislaam kon loolu moom mën nañ cee kii jërëjëf sëñ ci tontu bu am solo boobu kii day laaj mu ne lu tax ñu bëgg fee jëlee sexe naan genre ne dafa bëggoon nga indi ko ci ay leeral. waaw ah, ah, loolu nag dafa mel ne doomi nu ñeneen la euh, surtout ku demee ne sëñ sëñ Babacar Mbuub sëñ kër Mbuub moom suuf rek nekkoon moom waaye moom ni mu koy expliquer rek mooy euh, ñoom sexe dañu yaakaar dafa discriminatoire maanaam dafa mel ne day xeet moo tax ñuy wax genre noonu lañ koy firee euh, teewul nag am na ñoo xam ne dañ koy weddi ñoom dañuy wax comme gender du loolu li ñu bëgg wax rek mooy dañoo bëgg li ñuy wax émancipation de la femme lañ ci jublu waaye daal su dee ñoom sëñ Babacar ñi ñoom lii ma njëkk a tudd lañ wax dañ ne maanaam bëgg fee génnee sexe ndax baatu sexe sax dañuy déranger moo tax mel ne day wone eh, ak dooya di wala yu mel noonu loolu nag dafa am ay courant yu bare bari ci biir nga xam ne ni ñu koy déggee léeg-léeg mën naa xaw a garaaw soo gisee même sax ci naar yi dama ko ci gis ñoo xam ne dañuy jàpp ne eh, làkk ci boppam moo eh, surtout làkku arab moo discriminatoire daal ndax maanaam dañ naan yàlla sax maanaam ci damir góor lay jëfandikoo nangam nangam jigéen ñi daal jàpp ne kon làkk ci boobu moom moo leen tooñ culture moo leen njëkk moo tax ñu baatu sexe indi su ko defee nag lu ñu bëgg jaarale lépp ñu jaarale ko ci en tout cas suñu Babacar Mbuub moom moom la ñu wax ñoom nag ñoo ma gën a xam ci yooyu dama nettali ñoom seen i wax ak ñeneen ñu dul ñoom jërëjëf eh, sëñ Mbacke Mouhamed ci tontu bu am solo boobu bu ne kii ba tey day laaj mu ni jigéen ji nga xam ne dañ koo may te bëggul li ci des laa wax. yaa ngi indi problème de. Eh, eh, kooku sëñ Cheikh naa koy kii ndax damay bañ paa yi mere ma foofu laa yem sëñ Cheikh naa daal sëñ Cheikh naa kaay tontu lool déedéet jox ko non da ci baax sax <coughs> xam naa ni suñ mbàkk moom bu doon sama jawrin ma ne damaa bëgg a dugal <laughs> waaw ci eh, àtte boobu xam naa borom xam-xam yi wax nañ ci eh, cee tamit am nañ ci ak wuute wuute gi eh, mi ngi aju ci diggante li ñu tuddee bakkaara ak suyuba bi maanaam ak njànq ak ub jeeg ci la aju yenn ci mazhab bi suñu mazhab bokk ci dañoo gis ni jànq mën nañ koo forcer bi maanaam xale bu jigéen boo xam ne mësta dem kër lislaam may na baayam mu forcé ko maye ko loolu nag xëy ma xaw naa di ci déggin waaye siñ siñ Mbàkke ni mu ko doon waxee lislaam day sàmm nit ko ba bi mu nekkee ci biiru ndaayam bu génnee tamit enfant muy am euh, benn mat gi ngir mën a jël ay décision day may baayam muy jël décision am ci palaasam ndax day xam ne baayam moo gën a xam décision yu baax moo gën a xam lu baax ci moom moo gën a xam lu bon ci moom comme bu fekkee décidé na may ko kenn loolu lislaam dañ ci ànd bu ko defee nag boroom xam fi ñu wutee mooy kan mooy jànq bi ñu war a maye ndax jànq dañ koy natt ci ak bakkaar kese mooy jigéen goo xam ne mësta soog góor ci ni mësta sëy ndax foofu lay natt ak jànq kon boobaa ku dem ba am juróom fukki sax ci jigéen wala juróom fukk te mosoo dem kër dañ la war a mën a maye ndax jànq nga man de maye ci yow ba tey am ñoo xam ne dañ déedéet jànq gi eh, loolu ñu ngi koy natt ci ak sixar bi eh, Eh, jigéen gi ndawe gi nekk ci moom moo tax amut ak mat ba mën a jëlee décision kon bu demee ba àgg ci eh, kii bu mag bi benn âge yu mag yi kenn waratu koo mën a force am ci fuqahaay ñooñ lañ gis loolu tamit kon ci sayib saxir saxira mooy koo xam ni nekk na jeeg ba pare ba mu nekk jeeg nekk ndaw kon kooku dañ ko war a mën a forcer bu fekkee dañoo gis ni ci bakkaar ci lañ sukkandiku ñeneen borom xam-xam yi des tamit daal di gis ne daal di déedéet kii moom ndawe gi mi ngi fi mi ba tey kon boobaa euh, dañ ko war a mën a forcer ndax donte jeeg la ndaw gi moom ci mu ngi fi ba tey dañ ko war a mën a forcer ñeneen ñi gis la ca des nag daane kon duñ ko mën a forcer ndax bakkaar gi moo mais ci ñaar yi la mooy jigéen euh, may nañ baayam mu forcer ko bu fekkee jànq la lan mooy njànq ga nag borom xam-xam ci lañ wute ñenn dañuy liñ ci jublu mooy ku mësta dem kër mën nañ koo forcer ak at yu mën di am ñi ci des daane déedéet liñ jublu mooy ko xelam matut koo la ñu war a mën a forcer kon boobaa jeeg bu ndaw mën nañ koo forcer jànq bu mag kenn du ko forcer ña des daal ne jànq bu mag bu ndaw yëpp mën nañ leen forcer waaye jeeg bu mag bu ndaw kenn mënu koo forcer waaye nañ xam <laughs> euh, euh, da koy jëlee ay décision bu nekkee mag ak bu nekkee ndaw comme que nag jigéen rawatina jigéen dañoo bëgg ay xaw bëri ay bëgg-bëgg xaw tamit léeg ñu gis koo xam ne ñëw xooy leen rek ñu yaakaar mooy waaji fekk nekkul waaji baayam bi nga xam nag dem na booru àdduna ba de ba delsi dana xam ku baax ci jigéen gi loo tax léeg ñi ñu ñu maye kenn nga gis muy bañ ci ci ci njëlbeen gi waaye bu bu yàggaa dana fa am njaboot gu barkeel barkeel gu baree bari goo xam ne eh, buñ ko mayru woon ca force googu du ko fa am waaye moom daa xamul woon li nekk ci kanamam waaye bu demee bu dugg ci sëy bu am benn at ñaar at dana xam ne baayam lu baax la ko bëggaloon bu ko defee moo sax kon loolu daal loolu sañ-sañ boo xam ne lislaam may na ko baay bi waaye toujours lislaam day bëgg diisoo ñu bàyyi ci xel toujours lislaam day bëgg diisoo sa doom bala nga koo maye donte am nga ci sañ-sañ boobu nga ñëw waxtaan ceeg moom fexe ba convaincre ko ci xelam ba mu dem ci ca boo fay demee du ci demee ci euh, xalaat boo xam ne xalaat bu dàmm la li ñu tuddee euh, xel moo xam ne maanaam euh, mm. am xelam nekk xel moo xam ne mu teew loolu ci baax kon lislaam day bëgg diisoo ci yonent bi da ko doon da ko daan léegi wa shaawirum fil amri gisaan nga feneen tamit wa amruhum shuuraa baynahum loolu tamit ci mbirum sëy dañ ciy bëgg baay bi di diisoo ci moom lu ñu gën a bëgg sax Eh, ba yenn ci borom xam-xam yi bañ forcé daanaka ci foofu la ñu gën a dugg kon daal loolu ci gàttal xam naa mooy kii di jégalu bu baax a baax ci. jërëjëf suñ seexu naa xam naa dañ ñëw ci ñaar laaj yu mujj rek ah, kii dee laaj mu ne ku fi bàyyi atte eh, yàlla yi di atte woo ci atte tubaab yi lan moo di atteem. ku bàyyi. nag suñ seexu bàyyi atte yàlla yi dem ci atte tubaab yi. Eh, loolu nag jar naa xool ba xam yan àtte yàlla la fi bàyyi xam nga bi baax na li ñu wax eh, li ñu tuddoon ci alxaakimiya li ñu wax toogoon ci alxaakimiya mooy kan ma war a àtte eh, léegi yàlla ma war a àtte léegi àtte tubaab yi ndax wuute na ak àtte yàlla ak ci yan àtte la ci jëm yooyu dañoo bokkut bi ci desit mooy àtte leneen xëy na lu wuuteeg lii firiwul toujours ne da ngaa weddi maanaam boo xam ne am nañ ci tafsir yu bare bari foofu nag laay wax ci xaakim yi ak suñ mbokk yenn ci xawaar ji léegi dafa am ñoo xam dañ naan la e, nit ki mën naa bañ a woo ci àtte yii àtte yàlla yi nii te teewul muy ab jullit lii garaaw mooy àtte woo àtte woo yi jàpp ne moo gën a woo yàlla loolu moom maanaam mujj maa ne képp ku ko def maanaam man kat du ma attewoo lii ni lii yàlla wax fii lii laay attewoo lu ko waral parce que lii moom moo gën wala lee moom jamono da ko wees wala nangam kooku la ñuy wax ne kooku yéefar la loolu moom su dee nag xawaar ji nag moom ñoom yeneen la ñuy wax yooyu nee naa sama yéen ci jërëjëf sëñ Mbacke Mouhamed euh, ci tontu bu am solo boobu ñu ñëw ci laaj mujj bi rek mu ne kii de laaj mu ne ah, ndax ak can xaalis rek la mën a doon xaalis mën na ko xaalis rek la mën a doon la mën a doon mhm. waaw mën naa doon xaalis de mën naa léegi xam nga euh, can da nga gis ay yoo xam ne ci ñëw can mën naa doon lu bare bari mën naa doon lu baree bari am na sax ñu ne eh, nit ñëw na ci yoon saa salaam xam naa ca eh, bëgg ñu mayoon ko soxna boobu taxul mu jekk ko daal ginnaaw bi da koo laaj ndax yor nga jaaro sax yoru ko ginnaaw bi dana ko léegi may naa la ko ak eh, li nga xam ci alxuraan daal pour nga jàngal ko ko waaye maanaam ci cosaan xaalis la wala lu ñu mën a xaymaa xaalis loolu itam dañ ci bëgg bàyyi xel ak tolluwaayu jamono maanaam euh, par exemple ay jamono nit ki dadaa dem ci kër euh, ay euh, goroom nawet fa takk fa ay néeg ak nanga nanga defal ndey sax na yooyu lañ ko daa def waaye jamono mu soppi ko ba fu mu doon xaalis dafa gën a foor waaye mën naa doon lu dul xaalis itam mën naa doon lu dul xaalis su baree baree baree bari mën naa doon leen sax mën naa am may ko ko noonu ngir yàlla <laughs> ah bari na ci bàmba ji de moom maa ci dégg koo xam ne mag yi dañuy wax ne li tax ndeysaan sëy bi baal Euh, sëñ Modou Moussa Fall mu Cheikh Ibrahima moo ko waxoon daal ne ko am nga soxla mu déedéet bëgg nga mu kaay ma diw mu ko yoruma dara moo ko demal tibb fee ci gerte gee jox ma ci nii la ko maye. waaye nag bu ñu fàtte ne maanaam can euh, àqi jigéen gi la. Euh, fuqaa yi moom dañ koy wax moom àq jigéen gi la bàyyi bi moom ko ndey ji moom léegi nag moom su fekkee ne moom mën naa tanaasul ak yéen amul problème tanaasul mooy mu jéggale ko dañ ko yore danañ ci jox muqaddam muqaddam mooy avance di ko toppali jës yooyu yëpp mën a nekk léegi am na ci détails yoo xam ne mën naa am dana gudd ci yéen eh, te eh, kii daal li dama ne li ci tane mooy mooy question mujj bi léegi joxal Seexuna mu sëñ Seexuna mu gën ko mu sonal ñu ci kii. bëgg dugalaat xam naa waaw xam naa kon can eh, comme ni nga ko waxee rek madaahibul fuqaha dañ cee wuute dafa am ñoo xam dañoo gis nii can mën naa nekk loo xam ne luñ mën a jariñoo ak luñ mënta jariñoo am ñoo xam ne nag dañoo gis ni can luñ mën a jariñoo kese la la war a nekk loolu nag suñ méthode mi méthode bi imaam Malik ci la bokk ñoom dañ cee dolli ne can ñoom dañ koy fixé ñoom méthode bi imaam Malik dañ koy wutal aqal bi maanaam dañ koy wutal loo xam ne minimum ci lay tàmbalee ñu dalee ko ci rupon dinaar ci rupon dinaar léegi biñ koy euh, nattale fekkee ñun yaakaar naa ñu ngi joxe juróomi junni ak ñaar téeméer ñun moom la ñuy joxe waaye rupp ak dinaar daanaka euh, du digg génn diggante boobu léeg mu dem 15000 yéeg jëm kaw lu tax mu mënuñ koo natt ci date fixée nag pour nga xam ko dangay dem ci marché ba nga laaj tëgg bi euh, jëmmi dinaar muy ñoom or yi ñuy jaar daam am ab kem boo ko ciy laaj bu la ko waxee nga daal koy xayma ci xaalis ci gàttal waaye fekkee suñu mbéy ñoom. dañoo gis ni comme que lislaam dafa wax daan wasaariq wasaariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bimaa kasabaa nakaalan min Allah eh, nit ki li mu war a def pour ñu dagg ab loxoom ab loxoom dagan loolu mooy mu sàcc lu tollu gros dinaar ñoom dañoo gis ni loolu moom lañ jël war koo xayma ci cërub jigéen pour nit war koo mën a jël dañoo gis ni kon nit ki balaa war a mën a takk soxna minimum lu ko war a jox lu tolloog rupan dinaar boobu ñun nag suñ fii ñu ngi fi nattalee ci juróomi junni ak ñaar téeméer ñoom ci madhabu imam Malik gis nañ ni waru koo mën a yees jëm suuf waaye comme nag ni ko suñu bàkk waxee am na ay madhab yoo xam ni gis nañ ne mën naa nekk ko gën a néew nit sax ci alxuraan eh, bi yonent bi naan ko eh, maye naa la ko ak li xam ne eh, saway tig maama mel alxuraan maa naa la maye ko ak moom la àndal ci alxuraan kon loolu gis nañ ko waaye ci gàttal nekk ci madhab bi fi nekk muy madhab imam Malik ñoom dañoo gis ni wërta gën a néew lu tollook ruppa dinaar suñ dëkk bi nag fii ñun ñu ngi ko ciy nattalee ci juróomi junni ak ñaar téeméer mais xalaa ku la xaalin war a bàyyi xel mooy nekkul loo xam ne lu fixé la ci eh, ñi yor wàll googu tamit toujours war nañ di dellu ci marché ba xool ba xam ne dinaar bi mi ngi yéeg ak mi ngi wàcc di ko fexee def ci loo xam ni eh, du manqué waaye dara buñ ko saxalee rek mën ñoo dem ba àdduna wees ko eh, njëgg a weesu foofu ci fekk ñoom duñ ko yëg xam naa di jégaluwaat bu baax a baax. jërëjëf sëñ Seexuna ci intervention boobu kon dañuy profité rek di leen fàttali te mu suba bi. ñu koy ànd ak suñu Souleymane Badiane di la réflexion dans le soufisme son importance ses domaines et ses conséquences kon bu ko defee dañuy jébalaat kàddu gi suñu Moustapha Lo rek mu te jotaay bi ba suba jaam incha allah kon waaw dañuy jox ki nga xam moo fi teew école bi nga xam ne moom lañu invité di suñ Mbaye auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di leen balu xaq di leen baal xaq di feeñal suñu mbégte ci euh, waxtaan wi nga xam ni fekk nañ ko fi muy waxtaan woo xam ni jamono soxla na ko euh, jamono soxla na ko waa jamono itam soxla nañ ko bu baax a baax a baax euh, ñu jàpp ne lu mat di waxtaane la toujours nag Euh, bu ko defee ñun noo ngi fi ñëw ci turu école Cheikh Abdoul Khadir Mbacke nekk fële ca Touba ma Manaan ci njiitul al oustaz Serigne Bay di directeur école ba école bi nag ñu ngi ko fi sampoon 1996 euh, yaakaar naa le 3 mars 1996 la école bi tàmbali woon di jàngale euh, ba tey ji nga xam ni ñu ngi toll ci année mille deux mille vingt école bi nag ci njàlbéenam dafa doon jàngale arab kese ak euh, lu jëm ci matière diine yi kon école arab kese la woon euh, mën naa ni ci année bi ñu toll nii mi ngi toll ci juróomeelu année am franco arabe euh, def na fa itam ay résultats yu am solo kon su ko defee dañuy siyaar mboolem ñi nga xam ne fekk nañ leen fi rek di sant di gërëm di ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala weeru koor wi nga xam ne noo koy teewee yàlla bu mu doon suñ mujjug teewee ko ci mbaaxug Cheikh Abdoul Khadim Mbacké lépp luñ ci jaamu yàlla itam yàlla na ko yàlla nangu eh, ci dara ji Sëriñ Tuubaa te ñi nga xam si ni ñooy gone yi ñu àndal itam yàlla def leen ñu di ay mag te nekk magi islaam yoo xam ni dañuy doon muurum islaam islaam di seen muur ci barke Cheikhul Khadim jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi Euh, mu nekkoon euh, sëñ bi doon wax ci turu école franco araab sëñ Abdou Khadir Mbacke euh, ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci teewaay bi ak ci teewlu gi tamit am na solo lool di ñaan suñ boroom mu jariñ ñu ci waxtaan wi nga xam ne moom la sëñ Mbacke sëñ Mbacke Mouhamed loo doon def ñu koy jaajëfalaat moom it tamit ndax wax dëgg yàlla jox na ko àqam di jaajëfal sëñ naa Njaay tamit ci intervention yi ak ci Euh, fatawa yu am solo yi euh, kon xam naa lii moo doonoon euh, jataay bi di fàttali mbokk yi rek ne suba tamit thème bi nga xam ne suba ci altine ji moo fi war a am mooy atafakkur inda suufiya ahamiyatuhu wa athaaruhu masalikul jinaan marjaan ki ñu ko war a defal di Serigne Souleymane Badiane di gëstukat di waxtaankat bu mag kon loolu la woon ñu ngi leen di jaajëfal di jaajëfal mbokk yi ñu doon topp tamit ci Daaray Kamil TV Eh, jërë jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa liggéey na liggéey yu am solo lool ci dëkk bu sell bi di Touba ci diirum ñetti at yi di liggéey boo xam ne lees mën a teg bët la loolee ñu amal ko ci fànn yu wuute boo jële ci wàllu wér-gi-yaram bañ tegee xeer bu njëkk poste de santé bi nga xam ne moom lañ liggéey ci Touba Lansar te Serigne Mountakha Mbacké Bachirou tegoon xeer wa liggéey nañ ko ba mu àgg liggéey it poste de santé bu Bogoréel ak bu gol yooyee yëpp noppi benn bu ne ñu def ci ci koppar lu ëpp téeméeri million am yeneen yoo xam ne jamono bii ñu ngi koy liggéey te léegi mu noppi muy poste de santé bi nekkee ci daarul xadim ndaam ak Touba Njaareem mu nekk juróom benni poste de santé yoo xam ne Touba ca kanam liggéey na ko ci dëkk bu sell bi di Touba ci diirum ñetti at yi poste de santé yooyu mu équipé ko def ci ay jumtuwaay yu mucc ayib boole ci lu toll ci juróomi ambulance yoo xam ne def na ko ci dëkk bi am ci benn boo xam ne jébbal na ko ñi nga xam ne ñoo di waa sapeur pompier boole ca ñaari camion siterne yoo xam ne dañuy fay lakk ñuy bañ a am benn jafe ci liggéey bi nga xam ne ñu koy amal ci Touba Mbacké boo jëlee wàllum assainissement moom it Touba ca kanam def na ci jéego yu am solo lool ci dëkk bu sell bii di Touba ci diirum ñetti at yi ku ne xam na ne dëkk bi jamonoy nawet day taa rawatina mbedd yu mag yi loolee Touba ca kanam def ci yitte yu am solo jënd ay pompe yoo xam ne dañuy pompe mboolem quartier yi nga xam ne ndox mi da leen sonal waaye sëkk mbedd yu mag yi nga xam ne dem dikk bi dafay gën a yomb ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di oto yi rawatina jamonoy màggal ba léegi mu teg ci juróomi camion yoo xam ne dañuy an mbalit ñu jëbal ko xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou boo jëlee it wàllum éclairage public dëkk bi nga xam ne moo di Touba tolloonay jamono lëndëmoon na lool waaye Touba ca kanam def ci liggéey bu am solo lool def ci dëkk bi lu toll ci juróom benn junniy làmp ak juróom téeméer ak juróom benn fukk ci limboobu le junni yi ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom benn fukk yi lampadaire la yoo xam ne yu jamono la ñu def ko ci mboolem quartier yi nga xamante ni lëndëm da leen a sonaloon te ñàkk kaaraange gi ñu nemmeeku woon ko fa. liggéey bi jëmoon ci leeral dëkk bii di Touba def nañu ci lim bu takk lool ci ay millions. boo jëlee wàllum ndox mi it Touba ca kanam liggéey nañ ci liggéey yu am solo lool ci diiru ñetti at yi ndax Touba nekk na dëkk boo xamante ni jafe-jafe ndox dafiy am yenn saay ba tax na Touba ca kanam jóg taxaw ci temm ngir jàppale ñi nga xam ne ñoo di askan wi seenum ndox di bañ a manqué benn yoon. moo tax ci diiru ñetti at yi Touba ca kanam jàppale na fanweeri quartier ci dëkk bi nga xam ne moo di Touba waaye it jënd lu toll ci juróom benn pompe yoo xam ne dañ koo loon forage yi nekk ci dëkk bi dañ daan paan saa su ne. yemu ca ne jënd na lu toll ci ñaar fukki yoo xam ne benn bu ci nekk day def juróomi junniy litre loole lépp jëm ci jàppale askan wi ci ñuy bañ a am jafe-jafe ci wàllum ndox mi. wàllum éducation di njàng meek njàngale mi it Touba ca kanam def nañ ci jéego ndax ku ne Touba ne ay daara loolee moo tax Touba ca kanam jël lu toll ci téeméeri daara dal di koy yeesalaat defar leen ay mbaar yoo xam ne ci la ñuy jàngee ay néeg ak ay wanag. yemu ca ne projet bi nga xam ne moom la xalif général des Mourides door muy université bu Touba. keroog ba ñuy xeer ba Touba ca kanam yëkkati lu toll ci téeméeri million ci suñu koppar ne moo ko tàmbalee ci liggéey bi liggéey bi door mu sasoowaat beneen batiment boo xam ne xayma nañ ko ci 800 millions de francs CFA di batiment boo xam ne ca la ñuy jàngee xam-xam ci université bi fa yéene koo liggéey ba mu àgg daal di ko jébbal sëriñ bi. Touba ca kanam ba léegi ci wàllum environnement ci diirum ñetti at yi def na ci ay liggéey yu am solo lool fi nga xam ne moo di ci Touba ndax jëmbat na fi ay junni junni garab. boole ci ale bi nga xam ne moo bàyyi ko ci entrée Mbàkke bi ba ni nga ñëwee Touba muy ñetti kilomètre ci dem beg dikk bi lépp tubaa ca kanam jëmbat ko ay garab ngir gën a naatal dëkk bi waaye gën koy taaral. boo jëlee wàllum social ci diirum ñetti at yi tubaa ca kanam def na ci lu toll ci cinquante millions de francs CFA. te loolu bàyyeekoowul ci ñetti yi nga xam ne moom la taalibe yi joxe. jagleel ko ñi nga xam ne dañoo nekk ci dëkk bi te seen loxo jotul seen i ginnaaw rawatina ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci quartier sancaan yi. ak ñi nga xam ne dañoo feebar te amuñu lu ñu fajoo ñun ñëpp Touba ca kanam jàppale leen ba ci daaray alxuraan yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bi Touba ca kanam jàppale na leen ci wàllum social ba ci grande mosquée bu Touba daara kaamil ji nga xam ne ñoo fa nekk ñoom saa su ne Touba ca kanam mi ngi leen di taxaw ci fànn googu le ci xeex jàngoro ji nga xam ne moo di coronavirus bi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 noo ci yeesal suñu cant cant gu rëy. di si yeesal suñu jaayante. di si fàtte suñu laxasaay. Mm-hmm. waaw di di di di di di santat di santat di di am mbégte mu am. ci mm-hmm. tolluwaay bi. Mm-hmm. ndax xam naa ne nii nii nii rek lu ci ne. suñu tool noppi na ci. waaye lu ci ne dañuy dox ba ak ci fii lu toll nag. alhamdulilah mën nañ cee dolli ko yaakaar. mën nañ cee dolli ko yaqin. mën nañ cee dolli ko lépp. Ah. nga xam ne sëñ bi lépp. Ah. ngir taxawu leen ci seen wàllu wér-gu-yaram ci anam yu mucc ayib ci biir dëkk bu sell bi di Touba. waaw loolu dong mooy bëggu bëggu clinique mix Cheikh Abdoulaye Mbacké ñi ngi nekkee fii ci Touba 28 waaye lépp lu ngeen di soxla ci barabu fajukaay am na fii dale ko ci service ophtalmologie di traité cataracte wala bépp lunette bu ngeen yittewoo te mu méngoo ak seen i bët. consultation waaw bu dee suñu service médecine général nag lépp lu ngeen soxla am na fii consultation ospitalisation ba ci suñu service de maternité am na CPN accouchement échographie waaw ba ci service d'hémodialyse fii ngeen koy fekk ci clinique Cheikh Abdou Lahad Mbacké muy barab bu dal xel gannaaw seen jëflanteeg kilifa dina yu takku ku ci mel ne Serigne Mountakha Mbacké xalif général kullu murid waaye Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Souhaïbou waaye kilifa yi ngànk wàllu wér-gu-yaram ci biir réewum Sénégal dëggal nañ lu li mel 24 heures fi fekk suñuy service de garde ngeen mën a woote ci numéro yi 33 978 61 05 wala 76 638 38 wala 76 638 38 22 wala 76 638 38 24. ak clinique mixte Cheikh Abdou Lahad Mbacké fii ci Touba 28 seen jafe-jafe jeex na ci wàllu wér gi yaram. baaxi min al amraadi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi bëgg ngeen jàng alxuraan bëgg ngeen xam seen diine seen jot mayetu leen ko ngeen di laxasaayu di jàngi xamu leen ni ngeen di tàmbale minanul baaxil xadim learning academy mooy seen plateforme électronique bu bees buñ leen indil njàngum diine ci anam gu gën a yombee loolu nag man ngeen si jàng ferum iji man ngeen si jàng alquran man ngeen ci xam seen diine man ngeen ci xam ay xaddis yonent bi sallallahu alayhi wa ak yeneen i programme loolu nag fépp fu ngeen nekk ci àdduna bi ci seen i biir kër ci seen i business ci seen i waxtu yi ngeen di xam ne féex ngeen ci seen liggéey di ngeen mën a jàng ci biir plateforme boobu lépp lu leen rëccoon ci wàll woowu. indil leen ci nag ay borom xam-xam yu ñu ràññee ci yoonu lislaam yu ñu ràññee ko ci yoonu murit cours yooyu nag mbokk yi ay cours yu am qualité la cours yoo xam ni bu jël temps cours yu gàtt lay doon yoo xam ne di ngeen ci mën a ñëwaat di ko nafar di ko jàng ba keroog ngeen mën a ubbi téereb alxuraan ci diirëb ñetti weer te du ngeen ci am benn yàq-yàq du ngeen ci am benn jafe-jafe loolu nag mbokk yi dix mille francs CFA la par mois wala dix-neuf dollars ci fépp fu ngeen mën di nekk ci àddina bi. kuurum fer iji yi nag la ubbi. ci weer wii lay tàmbali lay nag amatul ndax jàng du wees waaye jàngin dina wees gaaw leen kon inscrire directement ci site bi di www point alminan point com alminan point com nag da ngay def a l m i n a n e point com mën ngeen ci inscrit ak seen crédit carte wala man ngeen fay via Orange Money à partir du Sénégal si numéro bii 77 512 45 05 wala man ngeen woote ci numéro bii à partir des États-Unis 1 877 218 9413 mën ngeen cee woote bu ngeen amee ay question wala su ngeen bëggee ñu leeral leen liggéey bi jërë ngeen jëf mbokki jullit yi mbokki taalibe li ngeen doon xaar agsi na yónnee ngir mën a bokk ci liggéeyu jumaay Touba te Serigne lu Mbacke waxoon ne képp ku ci farlu say mbir dina feeñ ba faw ku ci gën a jëf gën a jëm kanam gën a ëpp daraja waaye ku ci gën a des ginnaaw ginnaaw lay des rek ba faaw fondation Muxaddamatul Xidma taxaw na nekk fii ci Amérique ànd ak daayira Muxaddamatul Xidma ca Touba ngir yombal leen ci ni ngeen gën a jàppandale seen participation maanaam seen barkeelu ci liggéey yi ci jumaa ji mu lu jëm ci wàllu maintenance waajtaayu màggal gi dundal weeru koor dundal guddi gàmmoo saytu almeeru bàqiya yi si taxawu personnel bi ak yeneen ngir tàmbale siweeru weeru safar gi jàpp ci waajtaayu màggal Touba mën ngeen a yónnee seen addiya ci site internet bi www.toubamosque.com mën ngeen ci jëfandikoo seen crédit card paypal wala seen checking account lépp ngir mu jàppandi si yéen ndax du lenn kenn léppi ñëpp la te képp ku ci feeñ dootoo nëbbu ba faaw. numéro bi 813 2050 813 328 2050 salaamaaleykum mbokk julli di rawatina mbokki taalibe yi ak mboolem téléspectateur yi bàyyi xel seen seen Touba Vision yéen ko doon xaar agsi na jumtukaay bu mucc ayib teg ci méngoog jamono leneen waa Touba Vision mbokk mi demal gaaw léegi Play Store nga télécharger lii di application mobile Touba Vision. incha allah mboolem lu fay reportage interview wala temps fort di nga ko mën a dund en direct ci sa application mobile Touba Vision mbokk yi jumtukaay boobu dana tax bis na ko tey mboolem lu waa Touba Vision di ci ay événement moo xam ni gàmm. cant bés xasaayati wala yu demee noonu da nga ko mën a dund fépp foo xam si yaa ngi ci biir réew mi wala nga nekk ci bitim réew ànd ko ak si sa application mu nekk ci sa téléphone di mën a fekk foofu ay rubrique yu bari yi tax nga mën a topp Touba Vision mboolem événement yi nga xam si danañ ko couvrir fii ci biir réew mi ak ci bitim réew mi. kon mbokk auditeurs yi ñuy déglu rawatina mboolem spectateur yi bàyyi xel si seen Touba Vision dem leen gaaw léegi ca Play Store ngeen télécharge seen application mobile Touba Vision ngir mën a am ci seen téléphone seen télé bi ngeen safoo Touba Vision daal ca kaw. ngir taxawu leen ci seen wàllu wér-gu-yaram ci anam yu mucc ayib ci biir dëkk bu sell bi di Touba waaw loolu dong mooy bëggu bëggu clinique mix Cheikh Abdoulaye Mbacké ñi ngi nekk fii ci Touba 28 waaye lépp lu ngeen di soxla ci barabu fajukaay am na fii dale ko ci service ophtalmologie di traité cataracte wala bépp lunette bu ngeen yittewoo te mu méngoo ak seen i bët. consultation waaw bu dee suñu service médecine général nag lépp lu ngeen soxla am na fi consultation hospitalisation ba ci suñu service de maternité am na CPN accouchement échographie waaw ba ci service d'hémodialyse fii ngeen koy fekk ci clinique Cheikh Abdou Lahad Mbacké muy barab bu dal xel gannaaw seen jëflante kilifa dina yu takku ku ci mel ne Serigne Mountakha Mbacké xalif général kullu murid waaye Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Souhaïbou waaye kilifa yi ngànk wàllu wér-gu-yaram ci biir réewum Sénégal dëggal nañ lu li mel 24 heures sur fi fekk suñuy service de garde ngeen mën a woote ci numéro yi 33 978 61 05 wala 76 638 38 23 wala 76 638 38 wala 76 638 38 24. ak clinique mix Cheikh Abdou Lahad Mbacké fi fii ci Touba 28 seen jafe-jafe jeex na ci wàllu wér gi yaram. Touba ca kanam. Touba ca kanam bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wasalla abada ala allazi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi sabidna walil wali barkeb xaadimal Moustapha bokki jullit yi bokki taalibe yi rawatina waa Touba Italie asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi ñaanal Serigne Touba Serigne Mountakha Bachir yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te may ko wér Touba ca kanam di kuréel gi nga xam ne dañoo laxasaayu fas yéene liggéeyal Cheikhuna Ahmadou Bamba Khadimul Moustapha ke dëkkam bu tedd bi di Touba al-Mahrousa ci njiitu Serigne Abibou Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadoul Fadal Serigne Abdoul Ahad Mbacke ibnu Serigne Abibou ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo leen nekkal Italie muy coordination Touba Italie ci njiitul Baye Serigne Diop Serigne Gora Thiam Serigne Modou Ka ànd nag ak fédération bi nga xam ne moo lëkkale mboolem njaboot gi liggéeyal soxna jaara muy fédération daaira soxna jaara Touba Italie ci njiitul soxna Ami Samb soxna Awolo soxna May Dieng ak dëkk yi nga xam ne moom la làmm muy Touba Alessandria Touba Brescia Touba Carpi Touba Cuneo Touba Genova Touba Lecco Touba Legnano Touba Martinsicuro Touba Masanzago Touba Merano Touba Milano tuba Monza Touba Novara Touba Padova Touba Parma Touba Pescara, tuba Piacenza, tuba Reggio Emilia, Touba Emilia Romagna Marche Abruzzo, Touba Ischio, Touba Torino, Touba Trento, Touba Trieste, Touba Trino, Touba Varese, Touba Verona, Touba Zingogna, Touba Toscana, Touba Lecce, Touba Mestre, Touba Caserta, Touba Roma, Touba Mantova, moom sa jaalibatul maraaxib ñoo leen di xamal ne mboolem yëngu fédération bi jëm ci liggéeyu tedd boobu di Touba ca kanam ñu ngi ko tekki loxol ñaari Baay Faal yi soxna Jaara soxna Ndey Kebe ak soxna faatu Mbeng képp koo xamante ni bëgg nga cee am lu leer mën ngaa jokkoo ak ñoom ci numéro yi soxna Fatou Mbeng 349 17 43 cinq soxna Ndeye Kébé 320 26 12 837 noo ngi ñaan képp ku ci tàbba saw ñaq yàlla na nga dugg ci waq di awaahijal lazina daamu fii xidmati wa ablahum maaramoo barkeb soxna jaara tuubaa ca kanam tuubaa ca kanam tuubaa ca kanam asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu tuubaa ca kanam wajalilahi maskani tuubaa baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat tuubaa ca kanam maskani Tuubaa baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat